agent ngeen jëf ci mbokku internetu allo Sénégal ñoo amati mbégte contentement rek saa su ne bu ñuy janoog yéen ci biir allo Sénégal tey nag ñu daal di dalal ci beneen ndaanaan ci biir ndaanaan yi comme ni ma koy faral di waxee saa su ne ak kooku du kenn ku dul Patin Patin nga xamante ne macha allah kenn dootu ko présenté ti ci milieu bi nga xamante ne ci la nekk mi ngi bégal li nga xam ne mooy sénégalais yi rawatina àdduna wërngal këpp mbokku internet yi comme ni ma leen koy faral di waxee saa rek ngeen bàyyi xel bu baax li nga xam ne mooy abonné yi waaye di like ak di joxe seen contribution laataa ma kaa bàyyi mu nuyoo Patin Aïcha mbokku internet Allô Sénégal lañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñoom. waaw asalaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jox seen waat waaye naan leen man la Patin la Mito waaw dëkk Grand Yoff ngeen ñëw fekk ci ma Grand Yoff ñu fas yéene ko waxtaanee. Mhm. waaw kon doo xoolaa ah. <laughs> nañ xoolaa. Ah. Aïcha comme ni mu ko waxee nee na ngeen xool ah xanaa doo xool comme ni nga ko waxee mm. Aïcha Patin la ñu janool tey fas yéene am ak moom waxtaan ci lu soxal rek liggéeyam waaye ci lu soxal yëngu-yëngu jamono ba tax tey Patin dëkk bi dañ laa namm sénégalais namm la lii mën naa ni euh, demande bi nga xamante ni population bi ñoo ko def la ndax ñëpp dañ laa daal nam namm bu baax Patin ci lan ngay yëngu jamono ci waaw man maa ngi si maa ngi nii nekk ci sama aar rek mm-hmm. xam nga aaru Sénégal moom kenn Sénégal kenn ci présenté Patin mm-hmm. mooy maanaam dama toogoon sama rukk doon am lu ma doon préparé. Mhm. te yaakaar naa ne noppi na ba mu ngi daw. Mhm. muy fayeeku ma mhm. tourne joué ko patin dërëm gaajo ak kaaw ba yaakaar naa ne loolu mu ngi daw daal. waaw ñu ngi ñun ñun fan lay daw. waaw mu ngi daw ITV. E ITV e waaw ak zigzag benn site internet bi tudd zigzag. Mm, dëgg la mm, mm, gisoon nga standby bu baax li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi kenn gisatu la woon foofu moment boobu noonu yëpp euh, nga nekkoon kenn gisu la ci lan nga doon yëngoo da ngaa bàyyi woon li nga xam ne mooy euh, téléfilm yi da ngaa bàyyi woon série da ngaa bàyyi woon euh, li nga xam ne mooy télé yeeg rajo yi naka la demee foofu. waaw noo xam nga question bi dinaa sawar pour tontu la mm-hmm. xam nga Patin le Mito dafa débuté théâtre 2005. 2005 kon yàgg nga ci. waaw ma jël ma nekk ci. Mhm. commencé théâtre sur scène. Mhm. jóge fa dem mboroo di 2009. 2010 mhm. du moins. gagné meilleur jël meilleur jeune comédien. 2011 meilleur youtubeur. 2012 meilleur youtubeur. kon yaakaar naa ne lépp li ma waroon def ci sama carrière. def naa ko. du ma wax nag aar fay na ma lu nekk de waaye nag aar wax dëgg yàlla. non mhm. li ma lekk ci xaalisu théâtre bari na. torop torop torop moo tax ñu lay déggal ay oto 500000 ak ay ay yu bari. waaw yow oto lan moo lan laa yor sax. Mm. laajal Franc man est ce que yoruma Jakarta Jakarta de laa yor. ah oto benn Jax laa yor de. oto 500000 yeeg million yi ñu daan dégg ak 1 milliard yi na waaw non oto oto 500 mille waaw Amine xam naa rek moo koy ñaanal rek yàlla na ko <laughs> yàlla def. Ah, waaw yàlla na ko yàlla def. sa digganteeg Sadio Mané Sadio Mané di nga ko xam di ñàkk nii ni Jakarta nga yor yow tamit. waaw xam nga man Sadio Mané man joueur équipe nationale yi ñoom ñëpp samay xarit lañ. Mm-hmm. rawatina pap papi Djilaabo ji. lu ñuy xaar ci jox la oto. Djilaabo ji may na ma njogu lu ëpp njogu oto. jëndoo oto waaye 3 millions barki yonenti yàlla Muhammad. nga jëndee ko Jakarta. na ma 3 millions liquide. li may wax Sukayna Mbarodi bi tourné na fi mhm. fekkee na ko mhm. moo jox Djilabo ji sama numéro mhm. mu woo ma parce que boobu maa ngi koy kaatal équipe nationale mu may ma trois millions ko loolu mënoon naa si jënd oto mooy maanaam du question oto oto yomb na oto yaakaar naa ne ñaari su ma woowoon benn nit ñaari nit na ko oto laa bëgg du ñett ma am ko du du nekk troisième benn nit bu ma koy wax da jënd wala ñaareel jënd ko mais bàyyi ñu nekk ay Baye Fall rek nekk mm. ay yaaram di def ni gars di dox ñoom sànq dama laa dégg nga ni cinq nga def ci li nga xamante ne mooy milieu bi ñu bëggoon xam lan moo la inspiré tey ba nga dugg ci milieu bi maanaam loo xam ne ndono la da nga kaa doonu say parents ñoo ko doon def wala loo xam ne passion la da nga ko bëgg waaw man dama dëkk ci benn kër mooy fi ngeen gaare seen oto mm-hmm. kër gi tudd Banaya mm-hmm. sunu kër kër géwël la mm. kër gi ñëpp sama raq yëpp ay fecckat lañ mhm. tey yaa ngi gis Awa mooy feccal waali Seck mhm. yaa ngi gis Ndeye Ndiaye mhm. mooy feccal Sidi Diop si su ngeen toogoon tuuti si kanam 17 heures si digg kër gi la xale di répété muy waa kër gi ma dugg ci kër gi. ñëpp moom Awa Bandeya moom. waaw xale ba xew ci jamono. waaw yéen a bokk benn kër. mu mu ngi si kër gi si biir kër gi loolu sénégalais xamuñu ko woon mu ngi si kër gi. nday Ndiaye mu ngi si kër gi noonu. xam nga ñu nekk samay rakk. nekk ci kër gi. yeneen fecckat nekk ci kër gi yoo xamante ne génn gunu te mën a fecc piir hmm. xale góor yi. Mhm. sama raq yi. ñu nga gis ñu toog noonu ci bunt bi. Mhm. ñoom ñëpp ay tëkkat sabar lañ. ak ay tëkkatu jéembe. Mhm. xam nga ma dugg ci kër. juddoo ci kër màggee ci kër. kër gi ñëpp nekk góor yëpp nekk ay tëggkat. ay tëggkatu kooraa. ay tëggkatu jëmbe man ma génn ci kër ne leen man tëgguma. woyuma damay théâtre parce que lii laa bëgg. waaw parce que lii laa bëgg daal. waaw mu nekk passion la kon loo xam ne lu nekk ci yow la da nga hmm. kaa bëgg. damay desandi ci awa nga xamante ne moom nga daal di tudd léegi ndax sénégalais yu bëri daal dinañu umpule li nga xamante ne moom ngeen bokk ñu si bëri xamuñu ko woon temps yi ñu dégg ay wax yu sew ci moom loolu noonu noonu lañ ko dundee. yi nga xamante ne yéen a bokk. dañuy wax rek awa do awa defut dara dañuy wax rek. awa vidéo yi yu fuite nag. non non non non non non loolu amul. dara amul loolu loolu dara amul ci Ah, loolu dara amu ci awa mhm. awa. Mhm. awa xam na fi mu jóge mhm. xam na fi mu bokk. doomu bambara la. am na loo xam ne dina ko jommule boppam doful. xam am na loo xamante ne moom moom du ko dal parce que du ngaaka. doful ba fi mu toll léegi. ci milieu fi mu toll léegi ci fecc lenn li di ko dal am na loo xam ne nag destin la ci nit. xam mun na ñëw dal ci kaw nit parce que loolu nattu lay nekk. Mhm. mais li ñuy wax awa loolu dara amu ci. ci hmm. ay ca mbokku sénégalais yi yéen a ko déggandoo moom nga xam ne moom moo bokk ak awa ak kër moom nee na li nga xamante moom la ñuy waxal awa rek dara amu ci waaye ba tey dañuy daal di desandi ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi waaye sa xeew yi gi ñuy waxtaanee fan yii yëpp. yëpp hmm. naan peut na xam nga xew yi aayul. Hmm. kon xewoon naa rek sant yàlla. waaw xewoon naa. xew xew yi aayul man li ma war a def ci théâtre mhm. lépp def naa ko mhm. man fii benn comédien wala benn artist lu ma def si YouTube nit mënu ko def lu ma YouTube fay ñu naan dañ laa tojal nag kenn mënu maa tojal man man man nit mënu maa tojal mm. déedéet du tax loolu foo ko teg barki yonenti yàlla moo xam ne mënu maa tojal noo non léegi maanaam maa feeñ feeñatul si YouTube bi saa saa bu yàlla sàkk si wooma mhm. kaa ñu tourné. nga yaa bañ daal yaa doyal xaalis. non du question doyal xaalis yenn sites yi amuñu xaalis dañ may sonal. Mm. da bëgg sa site audience woo ma. Mm-hmm. ma la waxee kase doo ma ko fay. ah dëgg la loolu xanaa daluñu ñun waa Sénégal. kan ah xaw ma nag wax dëgg yàlla. <laughs> loolu moom daluñu moom xam nga yoo xamante ne. Mm-hmm. dañ lay woo. Mm-hmm. ne la bëgg ñu def temps. man su ma la waxee kase doo ma fay. comprendre nga. man YouTube waxuma YouTube day mel ni Tyson fu mu yóbbu ci làmb gi. Mm. barki Seydina Mohamed. waaw xewoon nga loolu moom kenn amu ci xel ñaar. xewoon nga bu baax waaw mais ba waaw léegi ba tey mais dama lay wax benn affaire nga dégg ko dama lay ne YouTube. Mhm, mhm. internet. Mhm. nit mu munu see def. lu ma defut woon nit munul lekk ci YouTube. lu ma YouTube fayul. ba tey YouTube dima ma fay xaalis. damaa toog te ba tey. dina ba tey nii nii nii nii nii. dinaa toog. benn diir bu yàgg. du ma feeñaat ci YouTube. xanaa koor gi may tourné nii. loolu ngay waajal fan si waaw moom lay waajal koor gi may tourné nii. chaque jour chaque jour internet bu yàggee nga late. mais li ngay def nii moog internet ñoo ànd chaque jour ndax yow nit ñi dañ laa bëgg ngay def lu am solo li nga xamante ni di loo nit ñi am na ñoo xamante ni par exemple faj nga ñoo xam ni dañoo feebaroon wala wala wala yu ni mel kon donc waroo gëj ci euh, li nga xamante mooy télé yeeg. Euh, euh, non télé du ma télé si gëj parce que maa ngi daw télé chaque jour lundi ba vendredi. Mhm. fayee ko mu ngi daw télé. Mhm. comprendre nga. Mhm. lundi ba vendredi fayee ko mu ngi daw. du ma koy du may faral di ko seet. lu tax gisatuñ la fa. deux. deux S. benn réplique laa fa doon def rek. gisatuñ waaw benn réplique laa fa doon def rek. léegi man damaa naqaree liggéeyal. Hmm, ndax la man. léegi naa da ngaa naqaree dërër nag. du naqaree dërër man damaa naqaree liggéeyal. Hmm. man xam nga mooy damaa naqaree liggéeyal mooy. Hmm. tey bu ñu toogee di liggéey. ak site bu mu mun di nekk. wala télé bu mu mun di nekk. li ma la war a defal man. Mhm. dama la koy defal fexeel ba li li nga ma war a defal. Mhm. nang ma ko defal. Mhm. waaw kon waa 2 daa am lu ñu la war a defal. te déedéet man musuma liggéey 2S. mat émission matinale bi Pape Sidi Fall moo may moo ma doon woo téléphone. ma koy ñëw defal foofu ay quelques matinales mais musuma liggéey 2S. musuma am 2S su ma liggéey 2STV. kon te te et liggéey télé su ma bëggoon liggéey télé suba du ma fanaan suñu kër. parce que aw ma temps boobu yeewu 6 heures du matin chaque jour dem télé. non daf pertal si lu bari daal. Ah. léegi à li nga xamante ne moom ngay def mooy cinéma bi am na leneen loo xamante ne mën nañ la cay fekk ban métier ngay def à li nga xamante ne mooy. man théâtre théâtre moom may lépp. théâtre rek ngay def nii nii nii. waaw théâtre moom may lépp. ba nga toogee génn too tamit fan nga doon jëlee li nga xamante ne man damay am soo ko doon jëlee damay am xaalis. soo ko jëlee yow it non liggéeyoo ma ne ngay liggéey temps yi mais moo may fay ba tey man weer bu dee bu ne. Mhm. weer bu dee bu ne su weer bi deewaatee naa la yónnee xaalis. weer bu dee bu ne. weer bu dee bu ne mu ngi ne la taxaw laaj da koy laaj. Mhm. weer bu dee bu ne. Mhm. YouTube daf may fay xaalis. Mm, te gën kaa néew daf may fay cinq cent mille. déedéet weer bu dee bu ne. parce que nag saa waay damaa yàgg ci internet dama yàgg ci YouTube bi. te samay vidéo dafa nekk ci internet bi. gën koo tuuti laa la wax. weer wu dee bi naa la yónnee xaalis. ñaata nga yónnee téléphone parce bi yëpp a toj. ñaata <laughs> yi baaxatul. gaay nga may yónnee bàyyi ah, yéen ko seede yéen mbokku internet yi. waaw ba tey nee weer bu dee daf ma yónnee xaalis. Aïcha ba tey ñu ci biir waxtaan bi ñu ah, daal di dugg ci nga xamante ne mooy Marodi Marodi ñu gisoon ni danga fa daan nekk di yëngal macha allah dugg bu dugg bàyyi ñu dugg foofu rek parce que am na seen mbokku internet yi si débat boobu parce que gis nga mbokku dafa am loo xamante ne dañ koo umpale mooy euh, Marodi ba nga fa nekkee maanaam benn buntu la woon tey mu nekk fukki buntu gisuñu la ci tey yoon ñu laaj la nii la lan moo tax gisatuñ la Marodi mhm. daa am sam benn nit Mhm. bu sori si man nekk sama mag nekk artiste. kan la kooku. jarul may wax turam. Mhm. parce que bëggul may wax turam. Mhm. moo may wax Mborodi bu si waxati bu si soree ma Mborodi. la ma war a def Mborodi lépp def naa ko fa. kon ne li ñu def rëy na. defuñu ma dara barki Seydina moo ko non non teg. xam nga c'est ça la moo internet yi ñu ko laaj chaque jour internet yi. daa mel ni amuñu idée. heure bu ñu ñëwee. seen philosophie lan moo tax nga jógee Mborodi dem yees Dakar la moo tax nga jógee. Yes Dakar dem AG Polo lu tax nga jógee foofu. Mhm. ñu gis la nga tourné ak Even Polo. bu xam nga. Mhm. nee naa leen loolu benn yoon laa ci wax. Mhm. te TFM laa ko waxee woon. nee naa leen tey laa ciy njëkk wax te tey laa ciy mujjee wax. Mborodi benn mission la woon. bu ma nekkoon di liggéey ak waaw Mborodi. ak liñ la fay waxal yëpp doo seetal sa def. xam nga Mborodi mënuñu Mborodi kenn waxal ma fa dara. Mborodi dañ laa dàq de. man waaw dañ maa dàq. noonu la ñuy wax doo seetal sa def waaw dañ ma dañ maa dàq kay loolu la wax de nee nañ sa contrat sa ñu dàq la waaw waaw dañ ma dàq dama xëy rek dama dama xëy rek ñu dàq ma kan. pot pot kooku nitu yàlla la Pape Omar Diop. barki mm-hmm. yonenti yàlla Mouhamed. Mm-hmm. kooku kooku dafa baax. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ne. man ba may nekk Marodi si ñi ma fa gisaat ni moom moo fa nekk bokkoon si fa nekk. ak Marisu. ñooñu yaa leen dégg ba léegi. ak Zé. non am na groupe WhatsApp dañuy déggante. am na ñoo xamante ne. nekkatuñu mboroo di bëri na comme ay siir ay edu mhm. ñu ngi si yeneen label production mhm. di di liggéey mhm. mais bu ñu waree déggante dañuy déggante kenn bu ku ci soxla sa morom da koy woo ne ko dama laa soxla si temps ak temps day ñëw par force man artiste bu ma soxla Sénégal si projet woola la ne la ñëwal defal ma ni da ñëw par force ak ku ak artiste bu mun munti nekk da ngay ñëw par force parce que même bu dee benn fan ñëw naa may la sama image waaw léegi Nafi nag yaa ngi koy dégg ak seen diggante yi ñaanu mu tax taxee woon. Nafi. Mhm. Nafi nekkatul fii Nafi mu ngi États-Unis. loolu ñëpp xam mu ngi états mhm. loolu moo tax deuxième saison Nafi amul. Mhm. Ah, Nafi moo tax loolu moo tax deuxième saison Nafi amul tul Nafi. papam moo ko yóbbu États-Unis nee na ko jàng laa la sant moo tax mu jël ko yóbbu ko États-Unis mu toog jàng. d'accord sant la théâtre. d'accord waaw mais Nafi moom. ño ñoom bële paase gisante nañ man ak moom. waaw parce que daje nañ ci benn. palaatu reerukaay mhm, da ngeen a neex woon lool ci film waaw waaw sama xarit la woon ci Nafi daje nañ benn palaatu reerukaay. Mhm. reer fa mhm. waaw. sa digganteeg Mass nag loolu ci mun a wax. kuy Mass. Mass. ban Mass. ban Mass xam nga ma Mass Marodi ban lan nga a waaw. ma aw Mass lu may wax ci moom xam nga la laajte kon ak Mass. gis nga nit booy dee sax. da wax dëgg. da ngay liggéey ak maas man la 24. Mhm. mbarodi la 24 la la maas di fay. Mhm. maas ma xama ak maas weer bi dee. Mhm. ma yeeg si kaw. mu signé seeg jox ma ma ñibbi. wala. ma war a tourné. mu woo ma ne ah pare gaañ séquence bii de lii ak lii ak lii xam gars yi bëggoon nañ la ko wax quoi mais da nga ñibbi mais demee jëm si jàpp rek xam naa ne suba du sa jour tournage. Hmm. mais dañoo war a tourner épisode temps ñëwal. te daf may neexal ma ñëw su ma neexalul du ma ñëw. parce que nekkul jour bi ma war a tourner. Hmm. loolu nga sekk ak Mass. loolu laa sekkoon ak moom ak weer bi dee ma yëg si kaw mu fay ma. léegi yow loo sekk ak waa Marodi. yow yow xanaa amoo question yow ma laaj. xam nga loolu ah. sénégalais ñoo koy laaj. waaw ñooy laaj. patin lan moo ko jëlee Marodi. waaw léegi lan moo lan moo tax léegi moo xam lu ma jëlee Marodi. Mhm. da nga koo a xam. Aïcha yow rek la sénégalais di dégg. am nga numéro maas. numéro maas jaru ñu koy am. non wala man mën naa la du ñu koy nataal yaa ngi nii toog. waaw léegi man mën naa la kaa jox. déedéet jaru ko. waaw léegi yow la yow la ñu ngi soxla mhm. dama nekk Marodi. 11 mhm. ans. boobu Marodi amul dara. ankay amoon na dara. benn buntu la waaw xaara rek. xaara dama nekk Marodi 11 di liggéey ak Marodi. contrat 5 ans laa am mu jeex. ma amaat contrat 6 ans mu jeex. maas woo ma ne ma kañ renouveler contrat ma ne ko saa waay mu de mun naa renouveler contrat mais nii ak nii ak nii laay liggéeyee parce que Marodi dafa am nu ñuy liggéeyee. Mm. te nag mag nag buy naan ndox bu tàng suukar saa tax. musuñu mm-hmm. ma weer musul dee. Mm-hmm. ba ma am ba nga dégg ma ma kaas wala ma wax ci mbaroori lu ñaaw. Mm-hmm. mais mbaroori dafa am nu muy liggéey xëy na dem naa ba benn jamono. loolu arrangé ci liggéey bi. d'accord mooy waaw waaw mooy tey. soxla ngeen ma interview. def naa ko seen ginnaaw. mun naa am beneen problème soxla ngeen ma tournage ak lu ngeen ma munti fay dama leen ko war a yëgal par la force. te man artiste damay théâtre xaalis laay ut. d'accord comprendre mhm. loolu. Mhm. ñu ne ma non lii ak lii la ñuy liggéeyam ma lii arrangé wu lii moom ma arrangé. Mhm. su munee nekk ñu tun ñu tourné su munul nekk ñu arrêté. lii lii moo tax nga jóge fa. loolu kese la loolu kese. maanaam bokkoo leen façon bi nga xamante ne moom ngeen di liggéey wala d'accord leen ci ay points yi nga xamante ne dañoo d'accordul woon point lañ d'accordul parce que mhm. xam nga ku def si label onze ans mhm. label bi tënkoon la mënu mhm. woon sax dem géejawaay fan def fa deux jours su ma amoon dëj Casamance tey su ma demee lu mu guddi guddi guddi damay ñibbisi parce que à tout moment mboroo di ñeenti ñeenti salaire laa amoon mboroo di ñeenti salaire waaw salaire patin la mito salaire salaire cité des acquis salaire u Nafi salaire u Pod et Marichou ñeenti salaire barki Seydina Mohamed ci télé laa toog mhm. ñeenti salaire mhm. la ma waa Mbour doon fay dañ ma doon jox ñeenti sec mhm. yu bokkul yu bokkul tey buñ la woowaatoon di nga dem artiste laa su ma kii woowoon sax nu mu tudd site bu gën a ndaw ci àdduna su ma woowoon ne ma damaa bëgg liggéey na ngay dem moo ka moo ko lu may fay su ko amee ma ñëw ñu liggéey kon man yàlla moo def man yàlla moo def site bu ma teg loxo day dem barki Seydina Mouhamed. loolu may yàlla la da nga da nga xewoon nag. si site bu ma teg loxo. site bi day dem parce que ñun dañoo maîtriser internet. dañoo xam internet. dafa dañoo xam internet. dafa leer xam internet. lan mooy yokk audience internet xam internet nan nga koy seetaanee. da nga cee yàgg dañoo yàgg ci internet. amatul lu may prouvé ci internet. Mm-hmm. man dëgg la da ngaa xewoon Aïcha mbokk internet yi gis ngeen li nga xamante ne rek mooy réponse euh, patin li nga xamante ne rek teg na ko ci table ci digganteeg moom ak Marodi mu nekkoon question boo xamante ne population bi dañ doon laaj lan moo tax Marodi daal di ñàkk ak ak ak ak maa ngi ñëw. waaw bàyyi moom bàyyi moom teg tegal foofu sa loxo ma ñëw. Aïcha ñëpp doon laaj lan moo tax Batin daal di jógee fi nga xamante ni mooy Marodi tey gis ngeen réponse bi nga xamante ni ah, teg na ko ci table bi réponse bi nag nekk rek réponse boo xamante ni ah, c'est pas diabolique parce que nekkul loo xamante ni histoire la li ko population bi foogee woon foogoo ne dañ kaa dàq ñii naan dañ koo liggéey ñii naan daa joteeg pot ay ay ay wax yu bëri daal voilà doguma la xaar dama lay wax. pot moomul Marodi gis nga pot. Mhm. weer bi day dee. ñu fay ko ñun nu ñuy arrangé. Mhm. topp toppalante séer day toog kii su jógee kii topp ci pot xam nga damay gis Sénégal ñu bari nit bu jotee ak kenn mboroo di rek ñu yaakaar ne pot la. pot la dëgg la parce moo nekk moom la nit yi di gis. xam nga mhm. mboroo di nekkul sax septième position mboroo di ñi fa nekk du ñu feeñ. Mhm. ñi nekk mboroo di ñi nga xamante ne ñii ñooy mboroo di mhm. ñooñu du ñu feeñ ay Tijaan la ay Amadou. ñooñu duñu ñu feeñ du ñu tourné. ñooñu ñoo lay woo téléphone. soo feebaree ñooñu ñoo lay jël si ak oto seen kër yoobu la. xam nga pot artiste la rek dama dégg benn interview benn artiste du ma wax turam bu nekkoon Mborodi. nee na sama jógee Mborodi pot la bu dee pot moo tax mu jógee Mborodi moom ñàkk faydaam la. Hmm, loolu la ñëpp waxoon sax. waaw artiste dama dégg artiste bu ko wax yàggul dara. Hmm. ci benn site internet. Hmm. mu ne man pot moo tax ma jógee Mborodi bu dee pot moo tax mu jógee Mborodi. ñàkk faydaam la gis nga nit boo koy wax da nga koy waxal jikkoom. gis nga pot. barki Seydina Mohamed may tourné patin la mito da koy assisté ba mu jeex. Hmm. ba tu ba quatre heures ma matin. Hmm. ba may tourné kooru patin man ak bébé. Hmm. ak mami. ak Aïssa. da koy assisté ba heure bu bu ndogu jotee mooy wàcc jëndi ji ndog yi. sa xarit la waaw xam nga day assisté maanaam moom loolu moo ko ñoroon mais. damay gis kenn da ngay am ak nit problème rek. ñu ne la pot wala ñu ne la ndax pot moom pot moomul mboroo di loolu leer na pot moomul mbooloo di pot artiste la weer bi day dee. mu tàllal loxo mu yéeg mu ñu fay ko mu ñibbi. dëgg la keneen tàllal loxoom ñu fay ko mu ñibbi kon moom moomu ko. ayca loo ñuy may nam nañ la de. kay loolu la nag ak lan ngay laajaat. lu lu la leer loo ñu may ma temporiser mbir mi ba pare. mayal mbokk yi soxna si kay. ayca may leen dara rek may leen dara ñu temporiser. oho dégg ñu temporiser ñu daal koy zirik comme ni ko ni ko ni ko ñi ñu di waxee. duñ ko de <laughs> ndax man du ma naan zirik dañ ziibuy kay. waaw nañ ko ziibuy kay nañ. waaw ci dolli ndox ayca looy may. di dolli waaw xanaa di leen di leen ñaanal rek. loo leen may nga naan wax di leen ñaanal ayca ñaanal kon ñaanal. Mhm. balaa ci label bu dégg. doo tee suñu baax. micro bi ban micro dafa kii quoi. daa lan. garaaw bàyyi ma garaaw <laughs> balaa déwén. Mhm. ngeen bokk ci ñetti si di ñuy compter. amiin. trophée yu inter am yëpp. Mhm. ngeen am ko. comprendre nga. Mhm. man daal loolu laa leen di ñaanal di ñaanal naa leen lii. sama mhm. idée sama idée la. Mhm. di télé bi. xam naa yoo xamoo fu mu parce que yàggoo fa. yàgguma fa waaw ah, parce que télé bi. ku ko njëkk créé dafa dee. daa dee waaw daa dee. dafa dee lii xanaa. te loolu yëgoo ko. yëguma ko dee télé bi ku ko njëkk créé nekkatu fi ne idée moo tafe longtemps. waaw suñu micro bi doo ko téye bu baax. non xam man tàmm te ay micro yooyu. man damay toog nii rek. di wax mais léegi garaawul. lenn daal laa leen wax dama leen koy expliquer mooy télé bi dañ ko créé te ba ñuy créé télé bi dama ko fekkee. Hmm. boobu ay naar ñoo fa nekkoon. ak hmm. ay japonais. ah. ay naar. laa yow looy wax ni. man nag dama faa yàggul moo tax. télé bi. Hmm. premier directeur bi mu ngi tuddoon Asal bu ndox kooku naar la woon. éthiopien naar la woon naar. Mm-hmm. Mm-hmm. moom moo créé télé bi. Mm-hmm. jëloon fa ay naar ay El Sarawi mm. ay xam nga. télé bi su ma wax du fi jógee quoi parce que damaa fekkee lu bari. ci télé bi est-ce que xam balaa moo ñëw senegal états la nekkoon. allo senegal allo senegal déedéet kay xanaa. bon lii foofu la kona la njëkk daw allo Sénégal daa daw États-Unis yéen ngeen ñëw xaw ma si yeen ku tukki woon jël turu allo Sénégal indi ko ngeen tuddee ko seen bi. mais aloo Sénégal la nekkoon di leen lii nag benn histoire la boo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. nekkul loo xamante ne dama mhm. koy rencontré. Mhm. dafa nekk loo xamante ne li fekkee la gis nga y' a pas de nga si bi am na benn waay. day wër sept suba. di toj picc kanam yóbbu na papa màkk daaw parce que da koo gëmoon. nga ne lu muy toj. picc kanam day wër di toj picc kanam xam nga kooku loolu gëm-gëmam la woon. te nit non nag may déglu de. waaw Aïcha man kay damaa jommi. picc kanam la doon wër di toj waaw waaw mais loolu la xam nga. Mhm. day wër di toj picc kanam yóbbu na daaw. Mhm. papam màkk. Mhm. kon y' a pas de sous métier. leen benn affaire boo xamante ne ren. tabax si bii passé dafa am benn waay si jardin bi fii lañ doon jaayee xar daa jënd benn xar cent quatre vingt trois mille neuf cent. rey xar bi. ñu fees xar bi fekk ci mbàkk xar bi cent quatre-vingt-trois mille neuf cent pour yow loolu du dëgg. Hmm, dëgg la kay. ah. eh man damaa wax yow mo nañ bàyyi parce que munoo ma di laaj may wax ngay reeraan xam naa yaa naan kii day fen rek te li ma te la expliqué nii lu am la ah <laughs> ak lan. <laughs> ba tey bu ma rey waay ay te ñu ne continuer waxtaan bi. waaw ma ñaan nga la koy laaj. <laughs> yow xam laa loo may laaj yow journaliste. lu ma kang Neymar. kan may Neymar. Neymar footballeur. ah. Neymar footballeur. Neymar footballeur. waaw loo bokk ak moom. non non Neymar. Mhm. benn bàjjanam moo dëkk fii. Awa Mar day jaay cere. ba muy ay temps booy fa lañ daan daje di waxtaan. relation boobu moo continuer ba tey. xam nga Neymar. maar mhm. la sant séeréeru saafen la mais loolu ñu bari xamuñu ko. maar la sant moom Neymar mooy yow Neymar sant maar ma bàjjanam a ngi fële mère maar fee lay jaay 18h lay teg paanu cereem di jaay. fa la daan ñëw temps booy moom nekkul woon sax brésilien moom jibotien la woon benn dëkk bu tudd jiboti mhm. foofu la dëkkoon fii la doon ñëw ci maam ji ñu fay toog temps booy di fubal mhm. xam maa ko njëkk a footballoo fii nawetaan benn ASC ASC Cité Millionnaire. Mm. mu ñëw fi dugal 3200 bii ci benn saison si la jaree ja dem. kooku ndaanaan la de sama waay la sama xarit la nag ma jox la numéro waaw après naa la jox numéro après nga jox ma amul benn problème lan ngay waajal li nga pareel tey jii pare nga pour ñëwaat comme na nga nekkoon ci réseaux sociaux yi pare nga pour dellu siwaat comme non c'est léegi man mhm. bugguma satiré ci internet mais askan bi xam nga mhm. ñun ñu ngi am xaalis mooy maanaam ak keppaaru senegal ñun mhm. ñu ngi maa ngi ci quatorze régions yi. benn mhm. tournée di am ñu may àndal di karasan noo loolu moo ma gënal internet nag jamono bi. waaw mhm, ah. moo ëpp xaalis. to talatuñu di do. saa waay Fatin ngi ne Pota ngi ne le Momo ngi ne diwa ngi loolu dépassé nañ ko fu mu toll nii. time is morning xaalis lañ tal xam nga. taloo fan si. ah fan si lay laajtee nag. man sama fan yëpp ay jour lañ fan si jour laa ëpp surtout ma jour équipe nationale yi. Hmm. barke sama fan yëpp ay jour lañ man. waaw. mais maa ngi am lu may waajal ak Allô Sénégal. waaw lu rëy. lancé ko waaw maa ngi am lu may waajal ak Allô Sénégal benn xola ku bëgg seetaan koor. Mhm. weeru koor bu neex. Mhm. bu saf sap. Mhm. eh man Pathé la Mito maa jox rendez-vous fii. eh xola waaw kooru Pathé biir Allô Sénégal. dama ne gars yi abonné leen de. abonné leen. naan na gars yi. Instagram Pathé ah. Franc ñaata abonné nga toll ah. yéen am ngeen quatre cent mhm. waa léegi YouTube ah mhm. léegi yéen quatre cent mille ngeen am YouTube mhm. quatre cent mille waaw quatre cent mille Patin la météo officiel am na huit cent mille yéen ñi bokkoon Patin la météo officiel abonné ñëw leen ngeen aboneel ma biir Allô Sénégal dina neex dina yëngu Aïcha ñu bàyyi la waaw di nuyu ñëpp di nuyu kii nga xamante ne mooy Franc nga xamante ne man kii mooy sama lépp d'accord man su ma tukkee sama xel day dal su ma xaalis sax boo ma koy jox moo koy jëli lépp mooy sama lépp mooy sama lépp mhm. xam nga lu toll ni TikTok mhm. nit géré ko mhm. man benn vidéo day dugg sama TikTok def pum moom la ñuy waxtaanal ñu bëri dañuy dañ may woo naat ma may patin booy bi yor sa TikTok bi kooku ban booy la ba la ko ko rek. Hmm. mu gérer TikTok bi. parce que l'ombre la daal. waaw hmm. parce que tey TikTok bi fu mu toll. Hmm. moom moo ko fa yóbbu. d'accord. bu dugg ci TikTok bi. damay woo. ne ma patin mu ne waaw mu ma ñii dañoo bëgg. publicité bi pour si marque téléphone bi wala temps. fay nañ la cent mille. wala cent cinquante mille. maa ngi kon moom daal amoo amoo fayam. no aw ma fayam. d'accord aw ma fayam parce que ki la téyel sa sa page. Mhm. la sa page YouTube. Mhm. xam nga. Mhm. la say matériel. lépp moom moo ko téye. d'accord lépp moom moo ko téye moom moo ko géré. tey suma ma su ma waree dem tournage. su may dem tournée ak label bu may dem tournée. Mhm. moom mooy yore coordination acteurs yi. d'accord crédit lay la lay dugal. ci mhm. téléphone mhm. diw fan nga tollu nga ne ko fii laa toll mu ne la d'accord. gaawal yow la ñuy xaar. moom mooy yore rési. d'accord moo yore rési. xam nga moo yore rési. d'accord dafa mën a filmer. dafa mën a monter. moom dafa mën a filmer dafa mën a monter. dëgg nekk acteur. xam nga di leen sant di leen gërëm. di sant sama ñeenti jabar yi wax dëgg yàlla. sama maa ma ne maa ngi sant sama ñeenti jabar yëpp. laa am. Hmm. waaw jabar di sant ah, sama di sant sama sant sama ñeenti jabar yi. Hmm. xam nga ki ma tasaloon sax ba takkaat quatrième femme maa ngi koy sant. Hmm. parce que wax dëgg yàlla ku ma bëggoon la. erreur jeunesse moo ñu téye rek. ma mayoon ko baat. waaw parce que dama ko ñuus mu woo magam ma may ko baat. xama kon ñeenteel bi ñawaat day mën a yem wala ma ñuusaat ko mu waat ma nga ma takk keneen nuyu naa leen gërëm naa leen après mu jeex. ay mbokk internet yi mbégte contentement lañ amoon dalal ki nga xamante ne mooy Pathin nga xamante ne macha allah gis ngeen waxtaan bu am solo bi nga xam ne daal di ko amal fii ñu fekk si ko ba fii ci Grand Yoff mu doon waxtaan bu am solo boo xam ne amal nañ ko yéen population bi yi nga xamante ne yéen doon laaj Pathin da ngeen koo namm da ngeen koo namm gis ngeen rek réponse yi nga xamante ne jël na ko daal di ko teg ci seeni loxo daal di tàggatoo rek ndànk nuyu ki nga xamante ne mooy Moussa mu féete woon ci xarala gi nuyu sama Pradwa nuyu Lamine nuyu mañaan nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen teewal woon li nga xamante ne mooy émission bi waaye waxtaan bi bu mu neex ba mu ba ñu fàttee le le 4 le 4 mars incha allah muy gàmmu gi nga xamante ne gàmmu gu am solo la di di woo ñëpp nag en le 4 mars si jàng ji nga xamante ne wax dëgg yàlla maa war a jàng 4 euh, bi mu ngi amee foofu sa Thiès di woo waa Medina faal waa Taaxe Kaw waa Jaxaaw waa Grand Sanding yéen ñëpp maa ngi leen di woo Amar Aïssa moo koy def ah demal nag dina neex dina yëngu di woo ñëpp waaw ba salaam. Aïcha mbokk internet yi comme ni ngeen ko déggee rek kon ñu di leen jox dig daje ak beneen artiste incha allah.